message ñun dañ koy am ci suñu ay portable mais dañ koy def nii muy dem ci écran yi je te jure moo ko fi njëkk a def bu ko benn télé def nag <laughs> yaa ngi direct de <laughs> <laughs> kaay leen di tàggoo ëpp on a plus rien à dire Marie Guèye man la bëgg bu ko waxee man la bëgg bu ko waxul man la bëgg. allez donc je démarre avec les photos. waaye yéen kii maa wappul. tey damaa yënguti daa wopp du ngeen ma programme tey amee def ay kii mais li ma gën a ci programme TFM nag mooy émission démb bi Mado takk na ay veeram dërëm mel ni kuy dem xew Mati Dieng di prononcé li daf maa naqari ba ci kanamu yàlla Mati ngi prononcé waaxu waxoom ma Mati léegi daa changé ni muy futur bi genre Amérique laa lay dërëm mel kuy dem ngénte mato takk takk na ay veeram nee na muy dégg chimère mu daw gis nga yéen a tooñ sama yaay yebbeeku ci man daan na rek allez on on on met lii TFM rek moo ko am TFM rek moo am lii c'est-à-dire même léegi tey ci guddi par exemple journalu 20 heures bi Sara bu koy présenté DT portable am euh, voici le titre du journal le chef de l'État son excellence président Macky a fêté aujourd'hui son anniversaire allez je vais compter trois man anniversaire yi ba jot sama téléphone lay joge ci page Facebook bu yeewu leen di dem directement ci écran bi un deux trois voilà mais ñun ñoo garaaw waaw lii moo tax sénégalais yi mënuñoo bëgg TFM. ah dañoo iñaane nag. dañoo iñaane dañoo garaaw télé yi mënuñu ñoo bëgg. mënuñu ko mënuñu dañoo aywa ah. léegi yow bi nga ah. dugal bi nga dugal dafa fort. donc c' est l' anniversaire aujourd'hui du président Macky Sall son excellence. Euh, ñun ñëpp ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal. voilà c' est vrai que nous sommes des sénégalais. oui et que dëkk bi bu neexee xam nañu. bu neexul xam nañu. donc on va pas entrer dans ces détails là de neex na ou pas mais euh, nit la président la jusqu'à présent donc ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan euh, ak wér euh, président Macky Sall tey la anniversaire moom nag bis bi muy judd ju ngi fal Abdou Diouf premier ministre. <laughs> Abdou Baguette la de <coughs> donc. xam nga ne foire am na gendarmerie maa xam nga loolu. son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal on te souhaite un happy birthday Aïssatou Paye nous a dit que tey lay dédicacé livre euh, livre bi nu mu tudd ci waay. Sénégal au cœur Sénégal au cœur voilà donc président Macky on te souhaite un happy euh, birthday joyeux anniversaire nañ leen ko wéyal mën nañu yónnee njëgu gâteau joyeux. pourtant buñ ko nuyoo nii on sait jamais de. dañuy yóbbu mën nañoo lu de tonton Daouda bon on lui souhaite un happy birthday euh, mon président euh, donc tey la anniversaire am. regardez encore deuxième photo bu may jëlee ci page Facebook bu yeewu leen. kii sama mère la la maa bokkul gaas maa garaaw rek man ku garaaw laa ndekete donc kii sama yaay la mu ngi tudd Koumba Diop eh, elle vit en France moom tamit tey la anniversaire mère Koumba Diop c'est la maman à euh, Nabou ak Charles Pierre maamu maam Sala euh, yaayu mbay Niang euh, yaayu tonton Alioune euh, donc yaayu famille bi yëpp mère Koumba Diop elle est très connue ci monde hindou. moo yore eh, ñi ñi indophile yi nekk Sénégal et tout ça voilà donc Mère ba Diop on lui souhaite un joyeux anniversaire de la part de euh, tous ses enfants euh, ñun ñëpp ñu ngi koy euh, ñaanal tey jii ci anniversaire am bi gudd fan ak wér euh, c'est de la part de Charles Pierre ak nabu yónnee nañ ma une une si longue lettre ça lu ñu fi def kay li ñu daw <laughs> wala ñu tegal leen way bi leen Youssou Ndour way yéen mënu leen dóor gis nga yéen waa TFM du ngeen ay dóor bi ngeen nekkee ci foire bi fu ngeen séenee waa sapeur rek da ngeen war a teg seen way bi c' est ça en fait parce que Youssou sagal na leen quoi way leen way bu neex donc maire Coumba Diop ñu ngi koy souhaité eh joyeux anniversaire donc à mère Koumba Diop c'est de la part de ñooyee yow tam lii leen Youssou wayal ñooyee nuyu ñu joyeux anniversaire à mère Koumba Diop c'est de la part de toute sa famille Nabou bind na ko euh, message bu gudd bu daw yaram euh, c'est dommage que duma am temps pour lire ko mais Adot Koumba Diop ñu ngi lay souhaiter un happy birthday beneen photo dafa yéex. da nga nekk mode de ralenti te ñi <laughs> te ñu baral yëpp yi. kii mu ngi tudd euh, Binta Ndaw on lui souhaite un joyeux anniversaire euh, Binta Ndaw euh, joyeux anniversaire de la part de Awa Diallo joyeux donc à Ndeye Binta Ndaw Sandene Aram Faxa Bëlëb Ndukuman Kor Mousse Diop borom Dakar Plateau on lui souhaite un happy birthday maintenant am nañu beneen possibilité ci télévision Futur Média am nañu possibilité jël photo bi sànni ko mais am nañu possibilité def ko tactile da ngeen bëgg ba tactile ko. yow tam ndànk ndànk alors kii la voilà Binta merci kii mu ngi tudd Bijou Diagne Euh, non est Bijou Diagne la tudd waaw Bijou Diagne la tudd pourtant voilà Bijou Diagne on te souhaite un joyeux anniversaire kii mu ngi tudd Maymouna Ndiaye joyeux anniversaire kii mu ngi tudd amadu Diagne de la part de Fatou Kiné sœur de Tata euh, toute la famille Thiam et Diagne te souhaite un joyeux anniversaire et <laughs> ça c'est beau frère. maam am. bon mbokk yi kii ci ñun lay liggéeyee. waaw. voilà xam nga ñun ñooy feeñ mais dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñu nekk ci ginnaaw ñëpp nag mu mënuñu leen wone mais kii ci ñun lay liggéeyee moom euh, mu ngi tudd Jogomaay. tey la anniversaire am c'est un ingénieur son euh, ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal ci bis bi voilà jogomaay mi euh, moom mag la ah, maam la sax waaw suñu tonton la donc tonton am on te souhaite un joyeux anniversaire de la part de tous tes collègues yu nekk fii ci télévision Futur Média une autre photo alors je vérifie en même temps ci Facebook bi kii mu ngi tudd Ibrahima Sow euh, Ibrahima Sow on lui souhaite un anniversaire ah jeex na merci ok <laughs> voilà donc fi la ñuy jaaree nag.